akala asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal waa àddina bi yépp man Cheikh Ndongo Seck Jamil maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru koor gi di leen jéggalu nag bu baax a baax baax di leen baal ah, di leen ñaanal yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim egg ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw man de maa ngi ànd ak groupe Rasoul média di waa kër Seyduna Muhammad di ci woo képp kuy jullit képp kuy tàggkatu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi la ci woo di la ñaan ah, nga siifar ko man de maa ngi ci maa ngi ñi ma àndal ñëpp loolu moom la ñu ngi leen koy fàttali tabarkalla di ñaanal waa kër gi yàlla leen yàlla yëkkati teg leen ca kaw a kaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa نور نبي حبيب الله صفوته من نور رب بلا ريب ولا نور النبي حبيب الله صفوته min nuuri rabbin bila raybin ala tuhmin fal xawlu awla fi maalan saabitan alana ana waa kër Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad Serigne Babacar Sy way na Seyduna Muhammad fanfi ihtimaalan li nuuri saabixin kaana maxluuqan wa waasitatan leen bañ naa la ak loo mën a am ba yawmal qiyaam sayyiduna Muhammad ana sopp yaa rasulallah Seydil Haaji Maalik nee na sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وليس لي أمل ألقاك يا عملي والمحبة والتعظيم والسلام خديجة وعلي وابن عائشة ومن بدعوته عثمان يا ليونين خديجة وعلي وابن عائشة ومن بدعوته ساب يزن يا لنان على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أبقي من لخيتك ثم بن عوف وسعد وزبير طلعة كعثمان في العيسى نبي وعلي أنا وكر سيدنا محمد سلام ربنا loxoy ca kaw suma banu aw a wasadun saaba yaa ngoog loxoy ca kaw saaba yaa ngoog loxoy ca kaw saaba yaa أنا صبي محمد سابي أنا صبي محمد سابي أنا صبي محمد سابي أنا صبي محمد سابي ونبي يا رسول الله سابي يا حبيبنا Abdoulaye Dieng همتي بنا Abdoulaye Dieng همتي بنا Abdoulaye Dieng خير النبي Abdoulaye Dieng همتي بنا Abdoulaye Dieng همتي بنا Abdoulaye Dieng دومي Abdoulaye Dieng دومي Abdoulaye Dieng خير النبي Abdoulaye همت ہے امینت ہے امینت ہے امینت ہے محمد امینت ہے doomi Abdoulaye Dia alimatu saadi moo Muhammad moo di turam lu yelloona nabi yow lu mën a wax doo paase kii baax na mboolem tiraani yee xéewal yi yaa ko waral mooy sunu wasiila mooy sunu yónnee ngir ngir ñaange ngir ngir ñaange ma gën ma gën la ngir ma gën ma gën la ngir ma gën ma gën la ngir nabi mooy sunu jàngee mooy ramu jàngee doomi Abdalaay jàngee fondation yónnee la yónnee bi fondation rasul yéen bëgg ma ayate fondation rasul yéen bëgg ma ayate KFKR yéen bëgg Mamadou Lamine FKR la nuy yéen bëgg Seydina Mouhamad fondation rasul la ngi yéen yéen ma ayate ku sopp yónnee bi jëf ko ci jaral loxoy ca kaw Muhammad moo jara wax lu baax yelloo na nabi yow loo mën a wax doo paase kii baax na yaa rabbi salli ala al mahmud sayyid إدنا واقبل شفاعته فينا والحاج مالك نينا على نبي وناسي كل رسول يلبك سيدنا محمد ربنا دائما مرزا man Cheikh Ndongo Seck Jamil maa ngi ànd fondation Kër Rasoul kase mag bépp tagg ko di bi sallallahu alayhi wa sallam making all the sex.